ñu këyit yi ma wax leen identité je le dis et je gis nga saa ñun ñii yëpp toog ci plateau bi kuñ fi ne woon tey jii nii desal caleçon doo ko nangu saa ay millions de nit toog seen kër yi taal seen ataaya teg écran géant nga ngemb di dóorantey kurpeñ kooku dañ ko war a respecté gis nga suñu réew mi maa ngi dégg mu ne euh, comité provisoire bi xaw ma. loolu hmm. point finance non lan lay def non lan la ñu def regarde hippisme ak lan. non ñoom ak lamb non non dafa ndànk di nga ñetti sport yooyu.